xam ngeen ne bis bi bis la bu sëriñ bi fonk lool dana ci teela waxtaan ak man ci wàllu bis ak wàllu tem léeg-léeg wàllal toujours sax daf ma naan tànnal tem ma ne ko déedéet tànnal tem soo ma nee waxtaanal ci nangam rekk baatu waxtaanal boobu rek moo ma ciy wax loo lépp loo bëgg ñu wax ko ci noonu la mës di amee ba mu ne ma bés ba taxaw na waaye danaa la waxtem bi fii ay fan ma toogit ba mu ooma ne ma dama bëggoon ñu waxtaan ci at tasawuf ma ne ko fa biha wa ni'ma muy tem diis nag tasawuf mooy sufiyankewu tasawuf mooy jaar ci yoon bi nga xam ne mag ñi ñuy tiitaroo fii ci Sénégal ci yoon boobu lañ jaar tasawuf mooy yoon bi nga xam ne moom la góor yàlla yi tànn pour jaamu ci yàlla mu doon école boo xam ne dañ ci appliquer alquran ak sunna mu defar ay góor ñu bari ci taarixul islaam feeñ dama naan ca subaayi lislaam bu dee lislaam dafa am fajar ak suba teel ak yoor-yoor dama ne tasawuf mi ngi feeñ ci suba teelu lislaam ci tur waaye ca fajari lislaam ba muy xar rekk la ànd ak li nga xam ne moom mooy tasawuf ma ne waxtaan bu diis la ndax domaine zawq la te mooy yëg-yëg domaine expérience la mooy loo dund ba xam lu muy saf nga door cee mën a wax ma diis la ndax domaine ay kusuufaat la muy ay uññi yàlla di defal ay nitam domaine ay futuuxaat la muy ay ubbee yu yàlla di ubbee ay góoram domaine ay fuyuudaat la muy ay bëbb yu yàlla di defal ay ñoñam domaine ay asraar la ay anwaar la ba nga xam ne pour waxtaan ci dafay laaj nga am dara loo mës ci loolu ñuy sant di gërëm di ñaanal yàlla Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mi nga xam ne taxawee na tarbiyatu taxawee tarqiyatu ci goxu Sénégal ak li ko wër wala ñu ne ci àdduna wërngal képp ba nga xam ne ku mel ni man bu taxawee di liir lu jëm ci tasawuf mu am lu ko cay xeeñ wala lu ko lu mu cay tàqamtiku falillah falillaahi darru cheikh mu mel ni tasawuf boobu pour ñu waxtaan ci dañ koy tënk rekk ci ñetti point point bu njëkk bi mooy xaqiqatu tasawuf muy lan mooy dëgg-dëgg tasawuf walla boog naka la ñuy xamlee définir baat boobu nga xam ne mooy at tasawuf te muy baatu arab di firi ci wolof sufiyankewu point bu ñaareel bi ñu waxtaan ci mabadi uhu te mooy principe yi tàmbalekaay yi nga xam ne ñooñ domaine bi moom lañ teg mu nekk ay rëdd yu leer yoo xam ne ku ci nekk fokk nga tënku ca loola ñetteeli point bi te moom la ñuy tëjee ñu waxtaan ci ahdaafuhu wa gaayaatuhu bu ñu nee tasawuf ne lii mooy condition yi lii mooy mabaadi yi xanaa ana fan lañ jëm lan moo tax ñu soobu ci loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee tasawuf mu mel ni kon dafa am départ am fum jaar waaye am fum jëm loolu ñu tàmbali wa billahi tawfiq di wax ne ak tasawuf ci luga ci làkku araab am nañu wax ne mi ngi bàyyeekoo ci baatab safa safa u mooy sell mooy set ci lépp loo xam ne gàkk-gàkk la buy tomb ci xol te bu yàggee dox diggante xol boobu ak leer yàlla yi ñu ne kon lay fóot xol boobu ba mel ni mu wara mel ba mën taataan mën a dekku may yàlla yi école ba ñuy defee loolu moom lañuy tuddee tasawuf ñu ne innama summiyati suufiyatu suufiyatan li safaai asraariha parce que seeni mbóot ay mbóot yu sell la wa naqaai athaariha seeni jeexital it dañu nekk ay jeexital yu leer yu set wécc am ñu ne baatu tasawuf ñu ko jëlee ci as safu safu mooy firi sàppe ñu ne innama summu suufiyatan li annahum fi safi l awali bayna yadayillah dañ leen tuddee ay suufiyanke ay suufiya parce que kat ñoom ñoo nekk ci sàppe bu njëkk ba ci kanam suñu borom subhaanahu wa taala te dara yóbbuwu leen foofu lu mooy seeni jëf ak seeni melokaan seeni jaamu yàlla ba bëccëg seeni tàggoo giñ tàggoog mbindeef yi pour janoog ki nga xam ne mooy borom mbindeef yi looloo tax ñu junj loolu ci aaya bi ubbee suñu borom wax na ne alquranul karim man yàlla maa ko donnuloo ci suma jaam yi ñett ñi ñi nga xam ne dañoo tooñ seen bopp ak ñi nga xam ne dañoo diggu doomu ak ñi nga xam ne dañoo raw ci jëf yu baax yeeg wax yu baax yi ba nga xam ne raw nañ ñaari kuréel yi leen féete gannaaw ñu ne ba tey maxuuzun min as-sifa sifa mooy melokaan am nañu wax ne baatu tasawuf ñu ngi ko jëlee ci as-sifa bi firi melokaan ñu ne lu tax parce que ñu ne innama summu suufiyatan li qurbi awsaafihim min awsaafi ahli suffa alladina kaanu ala dafa am ci jamono yonent bi lenn ci saxaabaam yu baax yi ñoo xam ne dañoo dedd woon àdduna tànn benn barab bu ñuy wax as-suffa di fa toog di tudd yàlla di jàng alquran di jàngalante xam-xam ak di xaatir ci li leen wër loolu itteel leen ba yonent bi mujj na leen bëgg ba léeg-léeg da daan dem di toog ci seen jotaay yi nit ñi mujj nañu itam xemmem seen melokaan ba ku am looy joxe ngir yàlla nga jox leen ko loolu mujj doy leen walis ñu wuti mbiri àdduna ñu toog rek janoog seeni borom ñu ne kon li seen melokaan ñoom suuf suufiyanke yi niroog melokaan yi ahlu suufa moo tax ñu tuddee loon ya am ñan am ñu wax ne maxuudatun min a suuf ñu ne baat bi ñu ko jëlee ci suuf te mooy leen mooy kawari xar yi nga xam ne dañ ci daan defar ay yére yu ñagas nga xam ne ñi àdduna itteelu dëgg-dëgg ñoom ñoo daan sol yére yooyu pour màndargaal seen dëddu giñ dëddu àdduna boo demee ci al mujamul muy benn dictionnaire arabe mi ngi wax ne boo ne sawafa fulaanan sawafa fulaanun fulaanan ay jaalahu min as suufiya boo ne diw suufiyankeloo na diw loolu day firi rek ne boole na ko ci sufiyanke yi wa tasawafa fulaan mooy saara na suufiya sufiyanke wu na nag mooy mujj na bokk ci kuréel boobu nga xam ne ñoom lañuy ñuy ay sufiyanke tasawuf nag ñu ne baatu tasawuf ñu ne kon benn yoon la boo xam ne dañ ci sooboo ci yàlla la cay ndëgërlaay mooy dëddu àdduna ak ràngoo mbooleem jikko yu sell yi simmi mbooleem jikko yu ñaaw yi pour mën a sellal bakkan bi yar ko ba mën a yéegee ruuxu bi ba mu egg ci kawe bi nga xam ne moom mooy cosaanam bañ a egg ci daanu ak suufeel comme ni ko yàlla junjee ba nga xam ne boroom mën naa dem a dem ba bàyyi may sax ko ilmu tasawuf muy xam-xamu tasawuf nag nee nañ majmuatu almabaadi allati yactaqiduha almutasawifa wal aadaabu allati yataaddabuuna biha fi mujtamaatihim wa xalawaatihim nee nañ mooy mbooleem principe yi gëm-gëm yi nga xam ne ñi féete ci yoonu tasawuf moom lañ gëm ak teggin yi nga xam ne moom lañuy ñuy ci biir nit ñi ak bu ñu weetee ak seen borom lii mbokk yi ci tënk rekk mooy wane ne baatu tasawuf baatu arab la boo xam ne dictionnaire yi arab yi daldi nañu wax ci moom dara wone ne mën na am mu jóge fii walla fi walla fii waaye buñ demee ba ci kanam dana leer kon baat boobu fan la dëkk ñu ne tasawuf ci luga moom mooy loolu tasawuf ci istilaax nag te mooy tungane du teew ñuy nataal bu ñu koy xamle ci làkku arab kaay leen ñu laaj nag ñi ko dund xam ko mës ko xam li muy saf dugg ci génn ci fanaan ci yendu ci yéeg ci wàcc ci ñooñu ñoo gën a mën a waxtaanee lan mooy tasawuf ñu interroger ku mel ni Zarruq ak Cheikh Ahmad Zarruq ci téere bu mbind tuddee ko qawaayidu tasawuf mooy règle règle yi nga xam ne moom mooy tënk tasawuf ak di ko àtte mu ngi wax ne waqad xuddat tasawuf wa rusima wa fussira bi wujuhin tablugu naxwal alfayn mosuma gis loolu benn baat benn domaine boo xam ne définition yi ci ñëw jege na ñaari junney définition loolu rek dafay wone ne domaine u yëg-yëg la ba tax na koo tàllal micro rek mën na definir tasawuf nam ko yëgee ak nam ko dundee moom mu teg ci ne waaye marjiuha kulluha li sidqi tawajjuhu ila allahi taala taarifaat yi définition yu bari yooyu yépp leeral yi ci borom xam-xam yi wax mu dem ba jege ñaari junne yi défini définition yi wuute mu ne ñoom ñépp boo boole dañuy dellu rekk ci jaam boo xam ne dafa dellu ci yàlla te dëggu ci dellu boobu mu dellu ci suñu boroom aaya bi wax ci alquran yaa ayatuha nafsul mutmainna turjii ila rabbik yar boobu nga xam ne ci la bakkan di jaar nekk amaara bi suu nekk lawwaama jaaree ci nekk raadiya dem ba nekk mard ya xam ngeen ne bakkan boobu dafa am ci école bu ñu koy formé am yar bu ñu koy jox mu mën a egg ci raadu ya boobu yàlla wax ne bu ci eggee nag ci lay door a mën a dellu ci boromam waaye suñu borom wax ne lay dimbale doomu aadama ci loolu mooy wat wattabi sabila man anaaba ilay boo gisee suma jaam boo xam ne dafa dellu ci man man yàlla wër mbindeef yi wan leen gannaaw jubloog man boo bëggee bokk ci ñooñ tasawuf toppal waa jooju bu yàggee rekk nga yëg lañ yëg waxee fañ waxee wala nga déggee fañ waxe te ñoom ñoo wax ne laa yafqahu aqwaalana illa man yafqahu ahwaalana ku xamut suñu mbir ku xamut li ñuy yëg mënuloo dégg suñu kàddu ku ñuy wax abu umar al anmaati nee na dégg naa Junayd te xam ngeen al imaamul Junayd moom la wax cheikhul kawm mooy sëriñi ñun tasawuf yépp parce que moom moo njëkk a feeñal dara ci mabaadi u tasawuf ak di ci wax ak di ci bind mu ne law anna abdan ata bi iftiqaari aadam bu ab jaam fexe ba sonn ci yàlla ba indil ñu aajowoo yàlla bu tolloog aajowoo yàlla ba newoon say suñu maam aadam wa zuhda isa mu góorgóorlu ba indil ñu dëddu addunaay isa wa juhda ayub mu góorgóorlu ba indil ñu góorgóorlu ak liggéeyu ayub wa taata yaxya mu góorgóorlu ba indil ñu topp yàlla yaxya wa istiqaamata idriis mu góorgóorlu ba indil ñu jub gu mel ni jubak ak idris wa wuddal xalil góorgóorlu ci yàlla ba am cofeel ak te mooy yont yàlla ibrahim wa xuluqal xabib mu góor góorgóorlu nag ba indil ñu jikko yu mel ni jikko yu yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne mooy soppeeb yàlla mu ne bu waay bu benn waay jaaree fii yépp mu ne ku mel ni ku ràngoo garaat yi yépp te des rekk lu tol ni peppu atom nekk ci sa xol bi ci aajowoo jëm ci lu dul yàlla mu ne xamal ne yàlla amul soxla ci lépp loo def déggee nañ ci loolu lim wax biñ ko laajee beneen ne ko luy tasawuf Junayd ne an takuna ma allahi bila alaaqa mooy nga ànd ak yàlla te doo amak yàlla relation loolu dégg la laaj foog naa ne boo fi nekkee yàlla nekk fi fook nag nga am ak moom waaye àndak yàlla te amuloog moom alaaqa xanaa mooy nga jeex ci moom ba yàlla kese des fi parce que yàlla dara taqul ak moom dara taqalikoowul ak moom dara jokkul jokkuwul ak moom dara dogoowul ak moom kon loolu wax la boo xam ne lu doy waar la ñu laaj ku tudd Muhammad aljariri abu Muhammad aljariri ñu ne ko luy tasawuf mu ne ad duxulu fi kulli xuluqin saniy wal xuruju min kulli xuluqin daniy mooy fexe ba soobu ci mbooleem jikko ju rafet waaye fexe ba génn ci mbooleem jikko ju ñaaw ñu laaj Junayd ba tey mu gën a xootal waxam mu ne an yumiitaka alxaqu anhu wa yuxyiyaka bi tasawuf mooy lan mu ne mooy yàlla dem ba rey la ci moom rey la ci yàlla waaye dundalewaat la yàlla loolu mooy li ñuy li ngeen dégg ñuy woy léeg-léeg di wax ne muutu qabla an tamuutu dee leen jëkk balaa ngeen di dee loolu mooy ku jaxasoog yàlla ba ba sa lépp jeex ci lépp yàlla ba yàlla des moom kottu boobaa yow boo xoolee sa bopp dootoo ko gis moom la baay waxoon ne dama toog man baay radiyallahu taala anhu jamono ma yëg ne am naa ak nekk am naa dara ci alal am naa dara ci daraja am naa dara ci xam-xam ma toog rek mel ni dafa am safara su ñëw lakk loolu yépp am benn ngelaw cell weer wu am doole ñëw ëpp doom ba ba man gisatuma suma nekk ga gisatuma suma alal ja gisatuma suma xam-xam ga gisatuma suma daraja ja ma amoon bàyyi teg ci ne falaa rajaat te yal na bul dara del siwaat ci loolu moom la waxoon ne bihi wa ilayhi minhu fiihi tasarrufi muraadi muraadul xaqi wal abdu kal qalam mu ne bihi sukkandiku ci yàlla wa ilayhi jëm ci yàlla fiihi ci biir yàlla minhu ak tukkee ci yàlla anhu jógee ci moom ba tey tasarruf yi lépp lu may def su ma mbooleem soppandiku ci loola aju mu ne muraad sama namm-namm muraadul xaqi mooy namm-namm yàlla su ma bëgg-bëgg mooy bëgg-bëgg yàlla wala abdukal qalam man duuma lu may jaamab yàlla bu mel ni ab xalimba ci loxooy ka koy bindee ba nga xam ne mënuloo may ndigalam ñu laaj abu hamzat al baghdadi mu ne alaamatu suufiy an yaftaqira baada alghina mais mandarga yi sufiyanke waa ji wax ne sufiyanke la mandargaam mooy mu ñàkk lépp gannaaw bi mu amee lépp way wa yazilla baada al izz mu mel ni ku ñàkk solo ku torox gannaaw bi mu amee mboolem teddaanga ba pare wa yaxfa baada shuhra mu nëbbu suulu gannaaw bi mu siiwee ba ñëpp xam ko loolu mën nañ ko jàng ci Cheikh Baye Nourou mi wa alaamatu suufiyil kaadib def ne loolu mooy mandargaa yi suufiyanke bu dëggu ñu ne ko luy mandargaa yi suufiyanke boo xam ne la muy wax du dëgg ci moom mu ne an yastagniya bi dunya baadal al faqri gannaaw bi mu ñàkkee mu fàggu ci àdduna bi lu ne ba far di tuddee boppam ku am waya yaisa baada zul gannaaw bi mu ñàkkee solo jugee ci ndox di mujj ci ci ci ci ci ci loo xam ne ku ko laal raxasu comme niñ koy waxee mu dem ba adduna solal ko ay yére rangal ko ay moomeel ba mu foog ne moom ku am teddanga la wa yashtahira baadal xafa gannaaw bi mu waree nëbbu suulu réer ba kenn du ko xam yàlla rek na fi mu far di buuxanteeg mazahiri yàlla yooyu ba fëgg dënnam ay diw daa di feeñ mu ne kooku mooy sufiyanke bi nga xam ne la muy wax du dëgg ci moom ruway ruwaym ibnu ahmad al baghdadi mu ne at tasawufu mabniyun ala thalaasi xisaal tasawuf ñu ngi ko tabax ci ñetti melokaan ñu ne ko mooy lan mu ne mooy at tamassuku bil faqri wal iftiqaari ila na ku mooy ba mu ci al faqru te ñàkk ak aajowoo jëm ci yàlla moo tax sax sufiyanke yi di woowee seen bopp al fuqara mooy ñu ngi rek wax ne yaa ayuha annaasu antumul fuqaraau ila allah wallahu wal ganiyul hamid yéen yéen ay way aajowoo ñi jëm ci yàlla yàlla nag mooy ki doylu walis leen ak walis lépp li ngeen fàggu mu ne loolu mooy xisaal bu njëkk bi ñaareel bi mu ne at taxaququ bil bazli nga dem ba dëggu ci joxe li nga am dem ba dëggu ci boo yoree dara nga tànn sa morom ci sa bopp ba mën a jox nit ñi ñu am ta nga ñàkk te loolu gis ngeen ni ci yonent bi yaree saxaabaam yi bañ leen yoxee bopp xar ba jàngale na ko bañ demee ci xare ba guuxu ndox ba kenn nanguwu ko naan ñetti nit yuñ jam ñu tëdd ku nekk di waaja de kenn yore guuxu ndox kum ko tiimale rek nga ne ko jox ko suma morom mi onk suma ginnaaw mu ma ko gën a yittewoo bala moo dem ci ñaareel bi dem ci ñetteel bi fekk mu dee mu del si ci ñaareel bi fekk mu dee mu del si ci ku njëkk ki fekk mu dee mu téye guuxu ndox bi na dëgg-dëgg yonent bee mën a yar kon loolu mooy nga dem ba wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuqa shuxa nafsihi fa ulaika humul muflixuun wa tarku taarud tarku taarudi wal ixtiyaar bàyyi aussi di gaar lu mbir yi ak di am tànn ci mbir yi te loolu lañ wax ne al muridu laa dañuy wax ne murid mooy taalube mooy kan ñu ne ko mooy ki nga xam ne laa yurid bëggut dara te gis ngeen ni ko bàyyi jàngalee bañ ko ne ndax bokk nga ci ñiy gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko loolu maqaama la di cër bu yàlla di may nit ñi maa ngi koy ñaan yàlla waaye xam naa ko bëgg naa ko xam ak bëgg boo xam ne bu ma doon dund ak moom di ko gis guddeeg bëccëg ñaar yi dara du ci yokku ñu ne ko ndax bëgg nga bokk ci ñi koy gis mu ne su ma ko bëggoon sax bugguma bugguma koo bëgg ndax lu yàlla bëgg rek mooy li ma bëgg Omar Amr ibnu Usman al Makki ñu ne ko luy tasawuf mu ne an yakuna al abdu fi kulli bi ma huwa awla bi fi l waqti lool bu ñu leen déglu woon ñoom sufiyanke yi rek dootuñ sànk waxtu kon mu ne mooy waa ji nga xam ne dafa mën a gérer temps mën a gestionner temps am ba waxtu wu nekk mu def ca lam ca war a def kooku du neenal ay waxtu ñuy dem noonu ñu laaj muhammad ibnu aliyin al qassab luy tasawuf mu ne axlaaqun karima zaharat fi zamanin karim min rajulin karim maa qawmin kiram ne tasawuf mooy ay jikko yu tedd yu yu feeñ ci jamono ju tedd feeñ ci waaju tedd ànd ak ay gaayu tedd loolu xanaa bu ñu neexoon rek ñu jàpp ci mawlaana cheikh ibrahim mi wax ne wa ahlu zamani kulluhum faaza raqiyan siwa man qala ji asira hawaa'i mbooleem suma ñun jamono texe nañ te ñi ngi am taraqi bu dul dakkati lu mooy ku bañ suma yoon wi te ku bañ suma yoon bi duuloo ku mooy koo xam ne dangaa topp sa bànneexi bakkan alkanaani wax ne at tasawufu xuluqun fa man zaada alayka fi lxuluq faqad zaada alayka fi safa mu ne tasawuf ay jikko rek la ku la ëpp ay jikko gën laa rafeti jikko rek kooku xamal ne getti na la ci wàllu safa te mooy sell zunnun almisri yi nga xam ne bokk na ci ñi Seydi Ahmad Tijaani dajal ci yoonam bi mu demee Màkka zunnun nee na tasawuf du dara lu mooy mu ne sufiyankey ñooy ñan hum qawmun asaru llaha azza wa jal ala kulli cheyin fa asarahum llahu azza wa jalla ala kulli chey mu ne mooy gaa ñi nga xam ne dañoo tànn yàlla mu gënal leen lu ne yàlla it tànn leen bañ gënal ko lu ne kon taarifaat yooyu comme que zarruq nee na dem nañ ci ñaari junney taarif foog naa ne buñ ko toppoon heure bi suba du fekk mu jeex ñu toxu ci beneen tomb muy lan aslu tasawuf fil kitaab wa sunna tasawuf bu ñu koy wax muy tem bu bari coow maa ngi liir benn livre boo xam ne benn waay bu dëkk Kuwait moo ko bind du wax yiñ bind senegal waaye benn waaju dëkk Kuwait moo ko bind dafa wax ci introduction ci muqaddima bi ne lislaam amul nattu amul musiba mu gën a rëy tasawuf kooku xanaa dafa déggut taarifaat yi waaye alhamdulilah ñun dégluwuñ ko pour xam luy tasawuf naka noonu dégluwuñ ku mel ni moom koo xam ne dafay bind ci kaw ndox day sonn rek waaye du am benn baat parce que ñun la Baay waxoon rek wa nahnu ala basirati min amrina zahiran wa batinan liñ nekk xam nañ ko ci zahir xam nañ ko ci batin ku ci bëgg a xam lu leer nag dang ñuy laaj moo tax nee nañ at tasawuf huwa rabbaniyatul islaam rabbaniyatul islaam liñ ci jublu mooy waajoo xam ne dafa sóobu ci yoon bu koy booleeg suñu borom jubale koog suñu borom ba bu yàlla ne suma jaam yi mu bokk ci oote boobu ndax xam ngeen ne ñëpp jaami yàlla lañ waaye bu yàlla ne yaa ibaadi yi daa di ci jublu ñim tànn day fekk bokk na ci ñooñu li ne woon wa mimma zaadani sharafan وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا mu ne li ma may ma kontaan ba bëgg a naaw ba teg suma ndëgguli ci kaw biddiwu suraya du dara lu may boone ne yaa ibaadi yow yàlla man bokk naa ca waaye nga boole ma ci ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di seen njiit ak seen royukaay borom wax ci alquran ne kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun na nekk ñooñ yàlla te dara du leen ko may lu mooy li ngeen jàng téere bi ak li ngeen koy jàngale lool mi ngi junju xaat ne ñooñ tasawuf ñooñ xam-xam lañ di ko jàng ak di ko jàngale te dana gën a leer ak tasawuf mooy maqaamul ihsaan te yéen ñépp dégg ngeen xadiisu Umar ibnul Xattaab bi Jibril ñëwee fekk leen ñu toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu laaj ko ne ko luy lislaam mu ne ko mooy lii mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko luy imaan mu ne ko mooy lii mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko luy ihsaan mu ne ko mooy nga jaamu yàlla te rafetal ni nga koy jaamoo ba mel ni yaa ngi janoog yàlla mu di la xool bi ngay def jaamu gi boo eggut ci janoog yàlla itam mu wóor la ne moom yàllaa ngi lay gis ci li ngay def mu mel ni waa ji nga xam ne surga la di def benn liggéey ci kanam patron amaan na nam koy defee dana wuute lool ak bu koy def te patron teewul waaye ku yàlla dimbale nag dana def jëf ja ci teewaayam ak ci fàddoom muy benn yoon beneen bi nee nañ at tasawuf huwa maqaamu tazakki mooy laabal bakkan bi yar ko defar ko ba mu bañ a doon bakkan buy not boromam di ko yóbbu ci lu bon waaye mu doon bakkan boo xam ne dafay yedd boroomam dem ba doon bakkan boo xam ne dafay gërëm boroomam dem ba doon bakkan boo xam ne boroomam daf koy gërëm te boobu mooy bakkan bi nga xam ne mën naa jëriñ boroomam ëllëg te suñ boroom wax na ne qad aflaha man tazakka képp koo xam ne laabal na bakkanam yar ko kooku moom nekk na ku texe ñu ne kon tasawuf mooy maqaamu tazakki gis ngeen moo tax ibnu ataillahi sakandari di wax ne amul benn mooy yàlla amul benn càggante amul benn réer lu mooy rekk topp bànneexu bakkan moom moo ko waral waaye amul benn yeewu ci yàlla ak benn topp yàlla ak benn jege yàlla lu mooy rekk baña topp sa bànneexi bakkan moom moo koy maye nee nañ at tasawuf huwa maqaamu taqwa te mooy ragal suñu borom subhaanahu wa taala te yàlla wax ci alquran yaa ayuha alladina amanu ttaqu llaha xaqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimun nangeen ragal yàlla yéen ñi gëm yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla te bu leen di génn bu leen génn àdduna lu dul mu fekk ngeen nekk ñoo xam ne jébbal ngeen yàlla seen lépp te taqwa boobu niñ ko mooy topp ndigal yi ak bàyyi tere yi jaamu yàlla ni ni ko bëggee te bañ koo jaamu yow ni nga ko bëggee taarif bi ci Seydina Ali waxoon lu siiw la ñëpp dégg nañ ko al xawfu min al jalil wal amalu bi tanzil war rida bil qalil wal istidaadu li yowmi rahil mooy ragal yàlla ak jëfe alquran ak doylo lu néew lu la yàlla jox waaye di préparer waxtu wu nekk ne di nga dajeeg suñu borom subhanahu wa taala ba tey at tasawuf mooy maqaamul ixlaas bi yàlla wax ne wa maa umiru illa li yacbudu llaha muxlisina lahu diin yàlla mu ne digaluñu jullit ñi digaluñu jaam yi lu moy ñu jaamu yàlla te sellal jaamu ga sellal diine ja ba mu ñaal yàlla subhaanahu wa taala te baay waxoon ne al ixlaasu huwa ixraaju siwa fi muamalatika maa alxaqi wa siwa ñu ne ko luy ixlaas moom baay radiallahu anhu mu ne mooy fexe ba génnee keneen kuduwul duwul yàlla ci sa jëflanteeg yàlla te yow sax keneen nga mooy da ngaa war a fexe ba yow sax nga génn ci nga génn ci sa digganteeg yàlla loolu nag xanaa ku mën a dégg waa ji ki laajoon yàlla ne ko kayfa sabilu ilayk nan laay def ba ñëw ci yow yàlla yàlla ne ko daanaf sa wa bàyyil sa bopp foofu nga nekk te nga ñëw ci man xaw ma kuy kuy des ak kuy dem bàyyi nee na boo demee ba mën a génn ci sa digganteeg sa borom rek booba ngay egg ci maqaamul ixlaas tasawuf mbokk yi mooy maqaamul istiqaamati te moom la yàlla wax ne inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an laa wala taxzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuwaaduun feneen mu ne inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu falaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun istiqaamatu muy jub xoccu te mooy nga tegu ci siraatullahi almustaqim bañ cee génn benn géndeeku loolu mooy istiqaamatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu istiqaamatu boobu la toog di ci xalaat nan lay def ba mu nekk ci xeetam wi ba mu bi jaaw te ay moromam bi jaawaguñ ñu laaj ko ne ko sang bi da ngaa teel a bi jaaw mu ne shayyabat ni huudun wa axawaatuha man suuratu huud mooma bi jaawloo moom laa xalaat di commissaire ba bi jaaw ñu ne ko loo ci jublu mu ne mooy fi yàlla di wax ne fastaqim kama umirta wa man taaba maak na nga jub yow yonant bi comme ni ma la ko digalee waaye ñi ànd ak yow itam nañ jub yonant bi ne man naa jub jaaxaluma ndax yàlla ma garanti waaye ni may def ba waa Kaarang jub waa feneen jub waa feneen jub man yonent bi loolu laa nekk di xalaat ba bee jaaw loolu nag liggéey la laaj ñu ne kon tasawuf mooy maqaamul istiqaama boobu te maqaamul istiqaama boobu mooy indi dund bu neex moo tax yàlla wax ne wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum ma an gadaqa bu fekkoon ne nit tegu nañ ci yoon bi yàlla rëdd bañ koo wàcc kon danaa leen dottil ndox mu bari mu saxal gàncax dund bi naat ba crise économique yi nga xam ne moom la ñuy jàmbat ci jamono ji loolu duñ ci doon dem Cheikh Hadi mi doon ànd ak Maulana Cheikh Ibrahim laaj nañ ko ne ndax cheikhaan yi la baal leen ma cheikhaan yi loo jàngee ci bàyyi ci tukki yi nga ànd ak moom mu ne lu bari la waaye bokk na ci dama ànd ak moom mu bëgg a déglu rajo Baye dafa doon ittewoo xabaar yi pour xam li xew ci àdduna bi def koo ittel lool mu bëgg a déglu xabaar bi yoon rajo bi di suus bàyyi di orienté rajo bi di orienté muy suus muy orienté buy suus ba ni mu koy orienté rek mu daal di suus yëpp daal di dañ kàddu gi leer mu ne hakada al istiqaamatu nafaat hatta nafaat radio mu ne istiqaamatoo ngi nii njuba ngi nii jariñ na ba jariñ na sax rajo ndeke rajo bu juboowul ak antenne bi koy jox sax du sotti moo tax doomu aadama bi war a jubantiku orienté wu ak payab yàlla bi pour nga mën a am ay tëbb tasawuf loolu ci tënk wane na lan mooy cosaani tasawuf ci li nga xam ne moom mooy alquranul karim ndax aaya yooyu yëpp ci loolu rek lay jàngale boroom xam-xami taarix nag wane nañ ne baatu tasawuf li indi coow li mooy dañuy wax ne tasawuf amul ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa ñu ne xanaa dañ ci jublu baatu tasawuf baatu at tasawuf kay mën naa am yonent bi tudd ko mën naa am saxaaba yi tudduñ ko gisuñ ko ci xadis gisuñ ko ci téere xadis yi mooy baat bi waaye est-ce que gis nañ ci téere xadis yi wala yonent bi tudd na ci dundam bi naxwu naxwu bi ñuy tuddee grammaire est-ce que tudd na sarf est-ce que tudd na balaaga est-ce que tudd na usulul fiqh est-ce que tudd na baatu tawxid bi nga xam ne dañ ko def domaine spécial ñu ne bu fekkee ber biñ ko ber mu nekk benn domaine ñu di ci bind am ñu koy saytu am ñeneen ñuy saytu naxwu am ñeneen ñuy saytu sarf am ñeneen ñuy ittewoo tafsirul qur'an am ñeneen ñuy ittewoo ulumul qur'an noonu la amee itam ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañuy wax ne ñun li ñuy ittewoo mooy jël aaya yi ak hadis yi nga xam ne dafa dem ci luy def ci nit ñi taqwa def ci ñoom istiqaamatu def ci ñoom ixlaas te loolu di ay mabadi islamiya ñu ittewoo domaine boobu tuddee ko tasawuf kon tur moom moo bees waaye dëgg-dëgg yëf yi moom moom ci la saxaaba yi nekkoon ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ñu laaj taarix mu nettali ñu qissatu ahli suffa ñu laaj taarix ba tey ñu ne ñu baatu tasawuf ñu ngi ko xam ci mille ci ci cent cinquante ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa maanaam téeméeri at. ak juróom fukki at rek bi yonent bi génnee àdduna commencé nañ utiliser baatu tasawuf nga xam ne boo moytuwul am na lenn ci taabiin ay gis saxaaba yi ñu doon dund. am na wax joo xam ne dama doon dégg ne imaam Malik a ko wax waaye boo toppee téere yi di tax léeg-léeg da ngay waaru ñu am ñu ne imaam Malik waxu ko askane nañ ko keneen. waaye imaam Malik wax ko ñàkk ko wax wax wax juñ war a mën a déglu la dafa wax ne man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaq wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaq Sëriñ Tuuba radiallahu anhu sax bind na loolu wa man bi fiqhin wa tasawufin jamaa fa huwa allazi moom dafa ku boole ñaar yi moom lañ war a topp baay wax na ne wa saaxib kulla qarmin xaaza jamaa shariati wa kon fokk mu boole ñaari ndab yooyu mu ne ku sufuyankewu damay sellal soobu ci yoonu tasawuf te àndul ak xam-xami diine xam-xami sharia mu ne kooku zindiq la te mooy kuy nëbbu lu wuteeg li muy feeñal mu ne wa man tafaqaha wa lam yatasawaf faqad tafaqah ta tafassaq képp koo xam ne nag dangaa jàng fiq xam xalaal xaraam xam attey te jéemuloo soobu ci yoon wuy sellal xol bi jegeel la sa borom mu ne yow faasiq nga koy génn topp nga wa man jamaa baynahuma mu ne ku boole nag sellal sa jëmm ji sellal sa xol beeg sa bakkan bi soobu jëm ci yàlla ànd ak nga xam at tey sharia yi mu ne kooku mooy ki dëggu dëgg dëgg sëñ Tuubaa kooku lañ war a topp baay mu ngi wax ne kooku itam mooy sëriñ dëgg te baay mi ngi wax ne bi zahiri shar'i wan nuuril mubiini u rabbi salikiina bila kaddin wala nasabi kon loolu mooy doon seen yoon bu du loon waxtu gàtt ma firil la nan la imam Zarruq firee wax ji wax ju yéeme la ci wax waaye dañ koy leb bébénoo ndax waxtu wi daf ñuy dab mu ne tasawuf lu amoon la ci at yu jiitu yu njëkk yi ci lislaam bu ñuy xool danañ gis ne tur wi moo bees waaye jëmmi alquran ak sunna moo doon tasawuf parce saydi wa mawlaaya cheikh ahmad tijaani nim taarifee tasawuf ci jawahirul maani dafa wax ne altasawufu imtisaalu l amri wa jtinaabu nahyi min xaysu yarda la min xaysu tarda mu ne tasawuf mooy topp ndigal yàlla yi bàyyi tereem yi ni ko yàlla bëggee duwut ni nga ko bëggee bàyyi moom dafa wax ne waalam ci benn leetaram anna tasawufa macrifatun wa cibadatun wa zahadatun fa man xalaa min waxidin min hadihi fa huwa muddacin haalikun la najata lahu wa kasirun min annaas tasawufuhum fi macbudihim addunya wa shahawatiha laytani lam acrif ulaika wala carafuni in lam yudaarikhum allahu bitawba mu ne tasawuf xam la kon xam moo ko lal faarifuni wa xaw ma boog wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni bindu ma nit ak jinna lu dul rek ñu dem sonne pour xam maay kan man mi leen bind bu ñuy xam maay kan danañ xam li ma yellool danañ xam li jomb ci man ñu askane ci man li yell ci man waaye mën a dàq ci man li yell ci man moo tax bàyyi ne yaani bi yaarifuni bi yabuduni yaarifuni lim mu ci dama bind mbindeef yi nit ak jinne pour ñu jaamu ma ñu xam ma la ci namm ñu ne xëy na ñi foog ne baay mooy fent yooyu naa leen wax ne buñ demee nañ liir waaye ibnu abbas mooy xabrul umma wa tarjamaanul quraanil karim noonu la firee aaya boobu mujahid kenn mënu koo desal gannaaw ci firee alquran noonu la firee aaya boobu am na sa ñoo xam ne wa maa qadarullaha xaqa qadrihi takk naa ci mujahid ni mu ko firee mooy wa maa arafullaha xaqa maarifatihi parce que yàlla mënuñ koo jox dara ci lim ñuy laaj fekk xamuñu niñ ko koy joxe joxe nañ ci misaal ci ki doon bës waa ji fekk ci taab lay bës te mu ngi bëggoon sëriñ bi kontaan muy bës ci taab bi rek muy muy muy nàcc di génne dëtt kon kooku mi ngi bëgg a bégloo ji waaye ñàkk xam waa ji tax na la muy def di lor waa ji tasawuf boobu mbokk yi yar na ay nit ñu bari al imaamul Junayd al imaam al Hasan an al imaam Saïd al Kharraz al imaamu Shibli. al ñu bari daal ci ñooñu nga xam ne tasawufa leen yar te ñooñu ñëpp dégg nañ seeni qisas dégg nañ seeni nettali dégg nañ liñ defal diine lislaam taalif ay téere yu bari maa ngi liir benn téere bu tudd kashful ghuyum an baadi asraari al qutbi al maktum ku tudd al cheikh salahuddin ma nga ca biir Égypte di naar bu weex tàll waaye mbedd ma jem ci zaawiyam ba sax dafa ñaan gouvernement égyptien bi mu tuddee ko Maulana Cheikh Ahmad Tidiane na mu fondement ye zaawiyam ba xissa bu doy waar la te imaam la boo xam ne mutaxassis fil qiraat te boo demee mu ne la silsila yim am ci tariqa Tidiane yu bari la waaye silsila bim jëlee ci Cheikh Ibrahim Salih ci Nigéria te Cheikh Ibrahim Salih jëlee ko ci baay nee na silsila boobu moom moo ko gënal. waajooju moo bind téere bu tudd kashful xuyum an baadi asraaril qutbil maktum mu ne kum neex nga xool ci góor yi diine lislaam yi téere yi lislaam di sukkandiku tey góor yàlla yi ñuy tudd ci xam-xam ñi ci bari jaar nañ ci tasawuf mu tudd ci ñu baree bari ba tey sufiyanke yooyu bind nañ lu bari taalif nañ mel ni ñépp ñi taalif parce que ñi bind ci domaine u dëppoowuñ ci lépp ñi bind ci wàllul grammaire dëppoowuñ ci lépp philosophie dëppoowuñ ci lépp asamaan ak sufiyanke yi nga xam ne seen yoon mooy gaarlu rëbb yàlla yi ak nafaxaatam yi te loolu na muy dikkee ma sàmba man naa wuuteeg na muy dikkee ma demba kon ñooñu bañ dem buñ demee ba wuute ci yenn masaayil yi maa ngi wuuteeg benn bindkat bu dëkk Sénégal gi wax ne lii wane ne tasawuf caaxaan la mooy da ngay dégg ma sàmba ci ñoom sufiyanke yi ne lii na lii lii la keneen ne lee-lee la mu mel ni kon ñoom la ñuy wax ci xel rek lañ ko teg ma ne kon bépp xam-xam bi ne ci àdduna benn wéru ci parce que néew na ci xam bu amul wuute xam-xamu tasawuf lu am doole la ci diinal islaam moo tax imaamul junay di wax ne law alimtu anna taxta adimi samaai ashrafu min hada al ilmi alladi natakallamu fii maa as maa asxaabina la saaytu ilay mu ne wallahi su ma leeroon ne am na ci ron asamaan xam-xam bu gën a foor xam-xamu tasawuf man junay di danaa ko wuti moo tax mu ne ilmu tasawufi ilmun laysa yaarifuhu illa axu fitnatin bilxaqi maarufu wa laysa yubsiruhu man laysa yashhaduhu wa kayfa yashhadu daw alchamsi makfuufu mu ne tasawuf kenn munu koo xam lu moy ku ko dund mu ne kenn munu koo gis lu moy ku janoog moom mu ne te xawma ab silmaxa lum janoog janoog weer wi naka la koy gisee waaye wa iza lam taral hilaala kay fa sallimi li unaasin ra'ahu bil absar boo gisul weer wi ndax dangaa silmaxa moom bul bañ ne weer wi kenn gisu ko te seen seentu weer moom dégg naa wolof yi ne jarul buuxante wa qaala cheikhu siqilli kullu man saddaqa bi hada al ilmi bi hada al ilm fa huwa min alxaasati képp ku dëggal xam-xam bi rek bokk nga ci ñoon jagle ñi wa kullu man fahimahu fa huwa min xaasatil xaasati képp koo xam ne yemoo ci dégg ko nangu ko waaye sonne nga ko ba man koo dégg comprendre ko yow bokk nga ci ñoñ jagoo ñoñ jagle ñi ci ñoñ jagle ñi wa kullu man abbara bihi wa takallama fihi fa huwa min annajmi alladi la yudraku wal bahru alladi la yanzif mu ne ku yemu ci dégg ko nangu ko nga xuus ci ba mën koo dégg waaye nga gën caa xuus ba man cee wax mu ne kooku moom mooy biddiw bi kenn dul séen waaye mooy géej gi nga xam ne du ngiis abadan te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam junju na loolu bi muy wax ne li ma yàlla yónni masalu ma baasani llahu bihi min alhuda walilmi ka masali lgays alkathir asaaba ardan fa kaana minha naqiyatun qabilat almaa fa anbatat alkalaa walushba alkathir wa kaanat minha ajadibu amsakat almaa fa nafaa llahu biha annas fa sharibuu wa saqaw wa zaracuu wa asaabat minha taifatan uxra innama hiya qicaanun la tumsiku maan wala tunbitu kalaan fa zalika masalu man faqiha فقه في دين الله وتفق ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا walam yaqbal huda allahi alladi ursiltu bihi mu ne li ma yàlla yoon ci tënk dafa mel ni rek taw mu wàcc rek fekk fi ñaari nit kenn ki mel ni ay jànj yoo xam ne ndox du ci taa te gàncax du ca sax fekk fi ñoo xam ne ñi ngi mel ni ay xur ndox de cay taa gàncax def tey def cay sax ñu ciy jariñ mbindeef yàlla yi mu ne ku njëkk ki mooy ki nga xam ne li ma indi def koo bañ rejeté ko nanguwu koo accepté ñaareel ki mooy ki nga xam ne li ma indi def koo nangu topp ko di ci fooglu di jariñ nit ñi loolu abu hurayrata moom la junj ci hadis bi mu wax te mu nekk ci saxiixul buxaari dama foog na ñi ñiy bañ léeg-léeg ak a weddi duñ jàng xanaa yenn téere yi wala boog ma laaj leen beneen yoon nan la ñuy def ak yooyu dafa wax ne dama jëlee ci yonant bi ñaari mbuusu xam-xam benn mbuus bi yulli naa ko an abi hurayrata yi bari na waaye beneen mbuusu xam-xam bi su ma ko yulli woon danañ dagg suma baat bi ngir xam-xam ba na muy foore ba dana dépasser nit ñi ba dañuy yaakaar ne man la may wax dafa génn xam-xam dafa génn diine te loolu Baay wax na ko ci xamle kan mooy Cheikh Tidiane yi rek dafa wax ne tanawartuhu fi hadratin qudusiyatin mudiran li kaasati almaarifi saaqiyan la amri hada cheikhu aynu wilayatin tafajjara min bahri nubuwati saafiyan mu ne wa samma wara alaqli maa law dakartuhu yuriqu dimaai man axaalu muwaliya Cheikh Tidiane yi bu ma koy xool di ko topp ci xaybu pour xam mooy kan damaa dem rek fekk ne Cheikh Tidiane yi daal benn dex la boo xam ne mi ngi bàllee ci géej ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dex ak wilaayatu la boo xam ne géej ak nubuwatu moo koy tëbb mu ne te am na ci gannaaw xel yi lu ma xam ci Cheikh Tidiane yi wallahi su ma ko waxoon ñu dagg ñi ma gën a bëgg ñoo may rey loolu la Cheikh Tidiane doon junj bi mu naan inna lana martabatan inda allahi taala tanahaj fi luluwi ila haddin yahrumu dikruhu wa ifshauhu wa laysa huwa ma afshaytuhu lakum walaw afshaytuhu wa dakartuhu la ajmaa ahlu lxaqi wal irfani ala qatli fadlan an man aadahum mu ne am naa martaba ci yàlla boo xam ne kawe naa kawe ba ñemewuma koo tudd ba bu ma ko tuddoon sax ñi ma gën a bëgg gën a nekk ay aarifiina dana leen dépassé ba danañ ma rey danañ ci dëppoo sax la wax mu ne waxatuma nag ñu dul ñoom mu ne waaye bokk na ci jagleeg maqaama boobu képp koo xam ne sàmmoonte woog xaatiru suma taaliba yi ci di leen naqaral ak di leen wax loo leen warta wax ak di leen tooñ maa ngi yaakaar ci yow halkaane boo xam ne du yàgg yàlla nañ ci yàlla bu sal alquran moom bu ñëwee ndar képp lépp alquran mu ne wasbir nafsaka maa alladina yadcuuna rabbahum bilgadaati walcachiyi yuriduuna wajha wala tacdu aynaka anhum turidu zinata alxayaati addunya wala tutic man agfalna qalbahu an dikrina wattabaca hawaahu wa kaana amruhu furuta yàlla mu ne nanga jañ sa bakkan not ko muñ ci ànd ñi nga xam ne ñi ngi jaamu yàlla guddeeg bëccëg di jaamu yàlla suba ngoon te nammuñ ci dara lu mooy jëmmi yàlla ja te looloo tax sufiyanke yi di wax ne ñun jaamu wuñu yàlla ngir ragal safara ànd ak ne ragal nañ ko jaamu wuñu yàlla ngir bëgg aljanna ànd ak ne bëgg nañ ko waaye dañuy jaamu yàlla ngir bëgg yàlla ngir ne ñun ay jaam lañ jaamu moo ñu war waaye yàlla moom e, buur la boo xam ne jaamu rek la yelloo loolu mooy yuriduna wajha bugguñ ci leneen wala taadu aynaka anhum ñii moom nang leen fixé bul du mooyu mukk nang leen topp